salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars toog ba mu yàgg sama xel mi dem ci Ousmane Sonko barki alxuraanu karim sénégalais du ko baax sénégalais bon seetaan ngeen Ousmane Sonko war ngeen Ousmane Sonko ñi mu njëkk ko àndal ñu jiitu bokk combat bi ñoo ko njëkk a war jeunesse bi doog a ñëw war ngeen Ousmane Sonko seetaan ngeen Ousmane Sonko yéen a ngi naan ay Macky Sall daa tëj Ousmane Sonko kee tëj Ousmane Sonko yéen patriotes yi yéen yéen a tëj la Ousmane Sonko est-ce que pare ngeen waa daan fa dem ay mitin nit ñu bëri dajaloo fo Ousmane ko ñu dem fa lu mu salan si ngeen def ko bañ a dugub ngeen wécci bañ a dugub bu karaatee ngeen karaatee bu teggee bool ngeen tegg bool bu teggee ah, bu bu teggee bracelet ngeen takk bracelet Ousmane Sonko xoolal bu jonkonee sax ngeen jonkon bu fubalee ngeen fubal léegi bu grève de la xanaa sax au moins même bu ngeen ko ji mënta jëlee ci prison bi ngeen def challenge grève de la faim ngeen grève de la faim Ousmane Sonko ku ko fekkoon fi mu tëdd këpp këppal ko ne ko uus mu ne la ah nga ne ko yow est-ce yow amoon nga yaakaar bis ñëw ñu ne la di nga nekk ci kaso bi lu mat vingt quatre heures waxuma la ak deux semaines barke alxuraanul karim du ko gëm yéen patriote yi yéen yéen a tëj lu Ousmane Sonko mu sell bi mais Ousmane Sonko di ngeen koo dugal di ko dugal di ko dugal di ko dugal ba mu dem si boxotaan ngeen seetaan ko war ngeen ko sénégalais yi war nanu la Ousmane Sonko bu génnee dina jàkkaarloog sénégalais yi ne leen billaahi war ngeen ma waaw war ngeen ma trop fi mu nii ba nu jàppee Ousmane Sonko ñun ñu fekk ñu war a jouer France le 29 waali sax yëg ko ci yoon bi la ko yëgee ñun ñëpp dañoo yaakaar woon dëkk ba day tàkk dëkk ba day boy dëkk ba day jeex fourneau sax tàkku fa jeunesse bi géej gaa ngi fees del ku ne ngi jàpp sa gël yóotu di lekk sa màgg di laal sa crème glace yu neex. réew mi daal a ngay neex Sénégal a ngay neex ana Ousmane Sonko bi ngeen doon wax loo tey boo laalee boo ko laalee dinaa la doo boo ko na 10 heures buñ ko jàppee heures 11 heures ñu bàyyi parce que confiance la amoon trop si ñun maanaam dafa yëgoon boppam lu bari boo ko yóbbee lii boo ko laalee dinaa la door kaa saa prinke para sa kerenda si gen soo soo ko binaa yee oo yee oo yaa yee kiri soo ko parenta si gen soo loolu lépp ngeen koy wax ay boo ko laaleeg boo ko laaleeg boo ko jàppee fu mu woote mitin ngeen déplacé wu te te subi xotaan gi nekk nii jege bay bëgg a dee mënu leen ko faa génnee moo tax sénégalais warkat la ku bon la sénégalais baaxul mais lii day jàngal nit sénégalais moom mooy kat Ousmane Sonko nag ñi mu tooñ dafa bëri armée état Macky Sall magistrat sa të të të te pen yi nga xam ne moom la ñuy waaj dóor ci Ousmane Sonko buñ ko ko dóoree pen bi ci gën a tuuti cinq ans la ci wit yépp léegi nag lu muy def patriote yi yéen yéen a tëj li Ousmane Sonko wasalaam kaasa prenke pré de préta